assalamu alaikum. Ya ngenam hemdella barikalla maa dëkk tey bu def vidéo su teel waxtaan tuuti <laughs> maa def leen dara it's not suba teel suba teel but fukki waxtu ak ben moo jot nii waaye maa teeloon a xewoo pare again of course so yeah si lu ngeen ne nag waa defu leen dara alhamdulillah baarikàlla axale suma fuddan si bi ma def démb ak bi ma def tey la ak suma kaala gi ma fiil soo holi tey beautiful fuddansi bi démb laa ko def bii tey tey laa génnee bii waaye bii mooy gën a ñuul waaw parce que fuddan yi bokkuñ bii si fuddan su neex a neex si ma xam bu yàggut si la bokk waaw subaa jàmm lay gën a ñuul bii nag fuddan si neex la moom it waaye fuddan soo xam la sa yoon wali laa ko xamoon soo fa xalamee ni daal ay weer xam na ko daal waaye also nu ma ko tayee fa xala jaxasoo like gis nga ko bii baaraam bi moo gën a ñuul and then fii xamut and fu doon si dafa muuf daf doon toxalu daal ni ma ko takkee parce que dama ko dee takk fanaanoog moom mais néeg ba ma julli liggéey ba pare boo dara desul du tëddi ma takk ko waaye fa mel ni bii xamutoon fu dën su doy ndax xaw ma fu dën see muuf parce que fii rek laa koloon di jéem a style nii woni scotland flag bi laa doon draw nii waaye fa xam tuuti don si dugg sax jaxase ko waaye food daal maasaloo waaye bii moom yëpp a masalo waaw bii moom maa ngi gis ne xamul ay digg yu weex bii si subaa jàmm di nga gis xaaral ma def si beneen rek <laughs> di nga gis dina gën a ñuul waaye ba tey nako naa ko yi di jaay ku ko bugg rek nga oo dama poos la ko fuddan diisut neex naa poos soo na ngeen def nag tey moom weral fa xëyee taw again you sedd xalam mel ni ku ne si winter you know te newuñ si winter de waaye Scotland fii ak taw ak weera bu bon fii laa leen war suma xoolee fi sama bopp laay xool soo yee maa ngi nii di naan suma mbuum ndox mu tàng ak mbuum su nga fi mbuum de leen ko jënd bala bu ngeen xamee ku leen ko yónnee Afrique waaw nga baxal ndox ba bax nga def ko dugg ndaw su fi mbuum sotti si ndox mu tàng suba teel nii nga naan ko bala ngaa lekk ku koy def de incha allah wér gu yaram rek ak ndox dee leen ko naan fi ne nii bi ma xeexoon naan naa kaasi ndox ba pare soo ko dem sangu ji ba ma paree ma teg suma ndox mbuum ak ndox ndox mu tàng loolu laay ne di naan fi mu ne nii suma paree continuer naan ndox continuer noonu ba ay ñaari waxtu Yani ben benn waxtu waaye tey moom foog naa ne ñaari waxtu wala ñett bala maa dog sama xoor gi wala juróomi waxtu sax dafa des rek parce que maa war dem suma kër xarit bi togg fa te su def kon may sootul may nekk ba togg rek lekk bay dinga ba sama biir di fees sama close duma lekkati ba suba ndik xoor gi may def pour wàññi yaram waaye mu ngi dox sama yaram allah may def horgi gi te may jéem ak exercise you know and stuff so tey li mu bëggoon mooy ñu waxtaanee rek ci ñun ñi nga xam ne fa mel ni li ñuy dund fa ñu neex waaye di same time fa mel ni neexut ñu te fekk li ñuy dund loo xam ne la lu metti la ci ñun ci suñ bopp lii xam naa ko ndax man sax defoon naa ko mooy nga war a wecc sa yenn jikko te ngay lànk ngir nga rëy mbala ngay xalaat ne su ma ko weccee kon maa war ba xarit bi wala ma war a wàññi suma diggante moom te kon may wéet wala kon fa may sikk ndax xam na yenn jikko yu bari yoo xam ne doo ko mën a wàññi te fekk yaa ngi ànd ak yenn xarit yi that's the fañ koy yokk buñ la ci dugalul it ñoom noonu lañ mel ndax xarit yi bokk jikko yi ci bëri ñooy mën a ànd kon nag yow su dee nga xam jikko yoo xam ne yaa ngi ko war a wecc sooy xam xarit nga war a xam xarit bu baax boo xam ne moom mu ngi foo xam ne foofu nga bugg a xegg waaye li problème bi xarit yooyu ñoom du ñuy bugg koo xam ne nii fa leen di wàccee si ron wala fa xam yeneen jikko yoo xam ne fa ko war a wecc fañ koy daw that's the sad truth so yow wecceekul yow kenn rek boo wéetee sax na léegi kenn du wéet nga seetaan télé seetaan vidéo you suma maas yaa ci internet bi dem ay vidéo read book génn dem dox su dee xam nga liggéey nga génn liggéey ñëw read book wala nga génn ci biti toog ci suuf si taxaw ci suuf si loolu fa baax si yaram baax ci wér gu yaram léegi laa jógee ci biti wala moo taw ma gaaw taxaw ci loo def lu baax lu lay képp ken nit ken kenn matu kenn du mën a jël sa bopp proté ko torop ba nga taxaw ni ni cocc waxuma loolu de waaye moytul ndax soo ko defut ngay sonn te ngay askan wi that's the reality ndax ñun the reality is ñun lu def luñ warta def yépp fañ koy jàngal yeneen gune yi ne ci askan wi that's the gune yi su dee génnee yeneen xeet yi def luñ warta def sax loolu lim leen mën a wecci lu tuuti la waaye sa xeetu bopp sa niti bopp sa ay mbokk sa ay xarit sa xariti yaay sa mbokki yaay sa cousin jos sa famille wala sa community ni ñuy def moo la gën a mën a wecc si ngay gën a relax gën a xam confident pour def ko that's the reality mota tax ñu ne gune li kawah ko wax du koy def li gis lay def surtout bu dee yow mi ko jut yaa koy def ba pare doomu aadama njaay sooy mag nga war a seet nga di ko that's the reality do ada njaay sooy mak nga war a wax sa bopp dëgg la kaf dana dana waaye su dëgg jotee ak def sa bopp nit nga xam ko te def ko ndax da reality is ñun àddina si ñun ñu si bëri fa ñuy ne fi ne lànk ne duñ wecc ba pare nag bugg suñu àdduna wecceeku àddina si mu ngi xaar pour yow nga wecc su ko defee moom it mu wecceeku ci sa côté ci sa boor yow ñun ñu ci bëree ngi dundu métit yu yàgg fa fekk ñu ñu bañ a wecci suñ def suñ jëfin moo tax métit yi yàgg xamee naqadi deret gu jéggi dayo soxot soxotaat soxot gu jéggi dayo cos xame ay jikko yu jéggi dayoo ne doo ko ba ñàkk gëm sa bopp ciwul ci ci ci lay ci ci ci ci lor nit la bokk ak lay joxe stress yow nit kenn gënul la gënoo ken jëfin yee wuute rek te jëfin yi benn fu bu nekk dafa am conséquence ben bu ne fa am loo ci jëlee loo ci jëlee idée lu baax la wala lu bon la ndegam booy def lu baax sax si ngay mën a jëlee yi lu la neexut surtout def lu warta def kon nag yow jàppal si yàlla te nga gëm sa bul nangu xarit walla àdduna tax laa dugg ci yenn yi bu la ci taxee duggit fippul nga génn nga séef sa bopp gi nga fi àdduna kenn mënul laa séef kenn mënul laa dimbale kenn mënul laa jox àdduna yow loo doodo gune sa xelam bopp mi nga xamee mën na laa séef moo tax yàlla jox la ko yow loo doodo gune man ngaa toog wax sa bopp dëgg génn ci li nga dugg loo xam ne ni yoon loo warta dugg la ku lay dugal ci dara loo warta dugg danga koy gis xam ne lii waruma cee dugg loo dodogu ne yàlla fa la def nga muusaame xel waaye àddunay léegi gi fa daw yaram surtout si gune yi fa ñuy dugg si luñ warta dugg def luñ warta def ba pare net fa ñuy xam àdduna bu baax àdduna bu baax du sotkot ku la ko waxul dëgg fii ñi fi dugg si liñ war dugg ngir xam àdduna bu baax ñépp fañ koy réccu tout xamu kenn ko ko réccu réccu yee wuute rek ñenn ñi fañ koy réccu réccu bu ëpp réccu bu metti ngir yu bon moo leen ci fekk yoo xam ne yàqal na leen seen àdduna ñenn ñi di ci dee sax boobu ñenn ñi di ci jëlee feebar ñenn ñi di ci jëlee tëdd kaso ñenn ñi di ci jëlee rey nit ñu tëj leen. bala bu ñu leen tëju tëj ñu nga xamee gilt ba ak tiitaange ga gilt ba mu di leen yàqal seen xaduna rey nit du caaxaan nit boo ko yàqalee xadunaam bala nga rey ko xaqam fa lay dal ba pare du caaxaan dooy mënatee nekk nit moo tax nit ñi dem ci xeex yi buñ paree du ñuy mënatee nekk nit ñoom ñu ci bëri gi nga xaduna lu yomb la billaahi moo tax ma di ko wax surtout man bët bu set suma xeexoon ni ma koy xamee parce que maa ngi ne ci jàngam haduna nu may def ba am xaduna bu yomb bu yomb def si buki, yépp si xadina si nit ñi di ko jàngale nit ñu bari ñooy dund xaduna bu metti xeet yépp nak. ak a rey seen bopp soo demee China ak yeneen dëkk yi li ñuy rey seen bopp ak bitim réew fii Afrique gu ñàkk gasa duñ ko def Afrique du ñuy seen bopp waaye ñu ngi def yeneen yoo ne raw rey aka di def nit ñi yépp parce que niñ jëlee àdduna rekk ko waral àdduna kenn warul la koo jox te kenn mënul la koo jox su la ko ni joxee sa yow nooy gërëmee sa bopp nit ku nekk fii nga loo tuuti tuuti yàlla joxal na la xel mi nga soxla pour defar sa àdduna mhm. bu dee xalal la sax mën nga koo xam soo gëmee sa bopp te jom te def li nga war a def te gëm sa bopp tey ñafe te dal bul di ñafe ak mer ak xëccoo àdduna si nama ma yàlla ma yàllal gaaw sonn naa xola man lu liggéey aw maalal boo def doo am alal ngay xum sa bopp alal duñ ko xëccoo di ko wut ci da rong wee mhm. soo ko wutee sa rong da rong wee da nga def loo warta def te soo oytu doo ci mucc surtout soo continuer di ko def ba pare su fekkee ne na nga ko xëccoog yàlla ak àdduna si jox ma alal sonn naa fa setan mumu moom moo mumu si mumu halal yàlla moom moo alal ji waaye soo dalee def sa bopp nit xam ne yow xalal boo ko xamee boo ko xamut xam nga lii tam moo nga di ko gërëm sa di ko gërëm lu ndaw li nga xam di ko di gën a góorgóorlu rek bunti yëpp commencé di yibbeeku du caaxaan li lii ay nit a koy def ba di gis di nit ñi ko jàngal di ko def ba di ci njëriñu waaye fekk yaa ngi sëriñtu ak a mer ak a defante ngir xalal xalal ji du si bëri duy ñëw wala suy ñëwee du ñëw ni mu war a ñëwee seetlu ko te xalal bàjjo bi comme ni ma koy waxee rek taxut a xam jàmm ñu bëree nga am xalal te xamuñ jàmm yow ni nga bugg rek mooy jàmm nga mën a nokki nii mu dal neex hmm? nga xam sa famille am jàmm soo xamul famille nga xam sa xarit wala xam sa koy wax ak hmm? xam jàmm sa biir xol bi daal hmm? wala nga xam ko bugganteel ngeen xam jàmm yooyu yëpp fay gën a yokk jàmm gi waaye jàmm gi number one bi mooy yow fii sa bos bi fii nga xam jàmm àdduna bi ni ngay xoolee àdduna si nga wecc ko di xool àdduna si sant yàlla xool picc yële leen di naaw nañ taxawee ci xaddab néeg ba na li nga xool ko kontaan sant yàlla ne picc yi la rafet nañ yàlla man xale picc ci ni ñuy naawee rek te man maa ngi ni mënuma naaw te yàllaa ko bind est-ce que yàlla man xam nga man picc fa ma neex waaye nga xool picc yi kontaan for exemple xool garab yi kontaan garab yi ne ñuy njaayaanoo ta rafet garab yi wuute àdduna fa àdduna fa rëy te rafet waaye soo stressé doo ko xam doo ko gis ci ñàkk fayda ngay dem di ko xool mu di la bégal di xool ay nit ñuy tëddoo bët bu set nga pour chronique ci xoolam pono xoolam pono boo ci chronique fa lay hum dafay yàq sa xel sa mental health te su su fekkee yaa ngi xam xalal ba tey hum na la du ne hum boo ko boo ko defee boo ko déggee rek xalal déedéet xam na ñoo xam ne fañ humu te ñu ngi am xalal xamoo lool waaye mënuñoo xam jàmm fii si man ko xamul jàmm fii kooku moo humu du rek ñàkk xalal mooy humu de mooy ko humu de Pon boo setan seetaan nit ñi laalante nga di ko seetaan guddee bëccëg ni ngay gisee nit ñi fay xuute dootoo mënatee gis nit ñi normal doo mana app seen nit ñi jënuwin li sa bopp doo ko mën a app seen partner boo bugg sax propali sax doo ko mën a tee xam ndax ngay wax ne ña ca ba ngay seetaan ñooñu nga bugg xam ak ni nga gisee ñooñu di tëdd ak different nit ñi ngay xool ñuy tëdd fay tax yow nga ne nga ko bugg a nit ki ne ne rek ngay commencé di ko bëgg a dund das ta noonu la yàlla bindee sa xel mi fa koy jël ko programme ko xamee ko di ko bëgg def waaye xam na ñoo xam ne jaral na leen ñuy seet yooyu ak a seet ay yu ñàkk fayda hmm? dan ñu jàkkaarloo ko àdduna si kontaan sant yàlla xool asamaan si xéemu xool garab yi niñ xuutee te bari façon ñu xéemu xool picc yi jos génn dox wala just toog ci néeg bi sax waaye just sant yàlla ci yim defar sant ko ci yow mim defar yow nga foog ne du xoo dara waaye soo xamoon li nga scientist ba gis machine dom doomu aadama njaay bañ def ko ci machine wan la doomu aadama njaay yaramam li ci ne yëpp ak ni muy doxee boo ko xamee kon danga xam ne yow dara gënul laa seer ta important ci yow kenn malut ni yow ci àdduna yow ni nga mel ci àddina yow kenn rek a ko mel si xandoor sax boo ko xamee xam na yu ngeen wuute sa xel mi ni muy xalaatee si àdduna yépp moom kenn rek ko mel nuroo ko kenn sa bët yeeg sa loxo yeeg sa bind bi ah even ni ngay lekk lekk sax boo ko lekkee caf gi ngay yëg ak ni nga ak ak lekk yi nga bugg ci àddina yëpp ak cafka gi ngay yëg boo koy lekk it lekk lekk bu ne yow kenn rek yaa koy yaa koy fiilee noonu nit ñi ñëpp a xuute nokki sax niñ koy defee fa xuute wax yi kàddu yu xuute baaraam yi nga fingerprint xuute kenn ku fi jógee rek du ñëwaat benn machine mënatu koo defar mu laa dina kon nag ñun ñu xam important lañ taxam doole ñun doomu aadama njaay ñun waaye ñun ñooy jël stress ak àdduna xame ko xamee ko ba tax duñ xamati ñun suñ importance duñ xamati suñ doole fekk jàngoo yow sa importance si nga jàng nooy fonke sa bopp soo mënee xëriit nga def research scientist about jëmmi doomu aadama njaay ah fexe di lekk lekk yu baax it booy lu bon it nga jaxase ko lekk yu baax boo koy lekk di naan mbuum nii lekk ay buy sukur su bëri nga wàññi ko ah. bu ko def sukur café sukur juice nga di ko naan juus yu du jeex juus booy naan it boog naanal benn kaas ci bi ndax yu sukar su bari lañ ciy def sukar sa café jus naan juus walanya yoon ñaar wala ñett ci bés bi sax boog xam yéen ñoo xam galon ni ngeen di naan ah ñëwaat leneen lu xam sukur sukur su bari si fay block sa brain bi block sa xol bi jox la ay chemical yi la sukar si bari mooy rey àdduna ne number one sukar la laaj ko docteur yi sukar yi baaxut léegi yow sooy lekk yu bari yu baaxut ci bi Fay kur sa brain bi mooy tëj fay tëj fatt sa brain bi ak sa wér gu yaram gi doo mën a tee xalaat natural xalaat bi la yàlla jox nga mën a sant yàlla sant àddina si xool sa bopp ràññee sa bopp xam sa bopp kim do xool nit ñi ràññee leen jos sant ci si ko man sa xel mi fay fat, sonn ne ci sonn ak ak stress because néew di ko jox yu baax yim soxla du recycle like ko docteur yi ak scientist yi su fekkee ne it yow dooy laal suuf dooy taxaw ci suuf si dooy laal suuf si yaa ngi sol daal rek ak a cenkel cenkel ci kaw sa yaram wi fay feebar sonn stress ndax loolu la soxla moo tax yàlla bu ñu indee fii mu indi ñu ak suuf si indi ñu ak ak lekk yi war a lekk ay saraas ay mangoog yi war a lekk yépp indi ñu ak ak ndox mu war a naan ñun ñoo ba lekk yooyu yëpp di lek lek yu bon yi li nga xam ne machine yee koy defar ñu di ko di dëkkee juus yu bon yi la machine yi defar nga xam fay reye suukar su bon si la ñu dëkkee ko suukar boo koy defal loo lu bon du ne nga koy lekk rek dee de <clears throat> wala feebar non <clears throat> pardon nga koy lek lu jaxase ko lek yu baax yi su ko defee yaram wi ak xel mi xam lu baax lu muy liggéey pour fight lu si ngay taxaw ci suuf si connect ak aat fa xam lu bari lu muy def sa yaram boo ci si laal suuf si toog si suuf si fa xam lu bari luy génn dugg sa yaram wi lu baax ñun doom adama njaay bañ ma nee tabax néeg man a defar daal la la suñu gu yaram commencé di wàññeeku moo mag ñu ñuy commencé di façon bu ne ñi di ko def néeg ji tabax ko mu gën a kawe ngay gën a sóoreeg suusi rek boo dëkkee ca kawe del wàcc taxaw ci suuf si laalanteeg suuf si connect ak moom soo buggee gudd fan laaj ko docteur yi def laaj ko scientist research ko pardon research ko làkk boo manti digg rek bind ko nga research ko nga wut ko ci internet bi laaj ko docteur yi research ko ne taxaw ci suuf si wér gu yaram gu muy def ci nit danga ko gis nit ñëpp a ngi koy jàngale ñun niñ bi niñ bindoo xat yi yëpp fa wuuteeg suñ mag ñi moo tax ñu am stress bu bëri di rey suñ bopp rek ifin doo suñ xaduna saa ngi yomb ba ñun suñ xaduna moo gën a yomb xaduna mag ñi téeméeri junni yoon <clears throat> te ñun ñoo gën a stress mag ñi téeméeri junni yoon ñun ñoo gën a xalaku ñun ñu ci bëri waaw di dorog suñ boppaka sàngara suñ boppaka tux suñ bopp tu deet lu nyu ñu di ko def suñu waxee ñu ne ma stress wala is my life limo moo jox happiness parce que yow real happiness bi nga war xam nga xamut soo ngay wut fake happiness happiness kenn duku hut wut si dara nee no ngay sonal sa bopp du sa happiness te baaxut si yow surtout boo def si lu baaxut <clears throat> loolu sa ennemi la waroo ko limo lii mooy happiness ko war limo wooyee lii mooy ennemi ndax buy tux la cigarette sax cigarette moo gën a bon ci yaram cigarette ci boppam moo gën a bon taay taay baaxut te taay fa lay mandiloo doo xam li ngay def te taay boo koy overuse baaxut ci yow baaxut sa brain bi te fa lay mandiloo ngay ganana ni di nelaw ak di kaya kaya te fay tax ku la war a respect du la respect te taay lu ci bëri boo ci nexee yu ci bëri dooy xem ci taay bi ngay bokk ci yeneen ak yeneen wala far nga di ko jaay sax dugg ci yow wata dugg daal yoo xam te baaxut ci yow ak communauté bi waaye cigarette moo gën a bon ci wér gu yaram daan taay surtout booy tux ay cigarette ci bés laaj ko docteur yi soo gisee euh, euh, àdduna si yëpp di xaaye cigarette di xaaye boo ko jaayee ñu jàpp la waaye du waaye tingat cigarette boo ko jaayee ñu bala hmm? mooy ne te ñoom ci ñoom nguur gi sax di jaay cigarette boobu di tax borom cigarette yi bàyyi leen ñi di ko jaay si biti mooy ne ñoom ci seen bopp fa ñuy am ay millions ci cigarette yi moo tax ñu nangu ko taay bi na suñ ko nangoo ku nekk fa koy bay ndax taay moom jaru euh, machine bi di ko defar mu nekk cigarette taay moom nga koy jël ji ko rek mu sax rek nga nga jël dagg rek taaj mu wow rek nga nga lëmas moo tax ñi di ko xaaye suñ ko bàyyee kum kum neex jaay ko ah kon ñëpp koy commencé di bay te ñoom duñ ci mën a tee xaalis kon te ñoom ci seen bopp fañ ciy xam xaalis bu du jeex ñoom nguur gi àdduna si yëpp nguur gu moo tax nag ñi ñu di ko xaaye nit ñi seen féeg xaaye moom cigarette moo gën a bon ci yaram te gën laa mën a rey te gën laa mën a jox problème sa kidney yeeg sa lungs yeeg sa yëpp lay jox problème ah cigarette boo koy tux bañ lay won ni muy ñuulalee sa sa mësini yaram wi sa sa sa lungs sa sa kidney yeeg lungs yeeg you know yooyu noonu ngay gis nim ko ñuulalee kuk laxte ñuul te wow ndeysaan sëxët si bon si nga koy jox chemical yu bon la ñuy def ci cigarette fu xuteeg mag ñu njëkk ña sax tabaay yañ daan jël bay ko tabaa gi ñor ñu rocc ko rek li ñoo teg ko rek mu rek ñu lëmas ko comme taay bi niñ koy defee yooyu sax taneexoon na su bonee it boneewut nii surtout boo ko tuxut lu bari ne taay sa fa ñuy wax ne baaxut waaye boo ko tuxut lu bari du la wàññi dara waaye boo koy over tux te yar sa bokk ba bu ko tux lu bari loolu mooy jafe waaye cigarette ku gën a bon te bu bu set nga génne ñi di ko jënd di ko use di abuse seen yaram yi soo waxee ñu ah ma ko this is what you know this is what I love <clears throat> nit ku fi tàmbali loo warta def man nga ko ba man mi tàmbali woon naa fi lu ma warta def maa wax sama bopp dëgg ba ko te daf ma doon jox happiness lu bon lu bari fa lay jox happiness seytaane ci hand def def def ko muy happiness toon ko into happiness te fekk sa poison la man na laa rey man na laa feebar nga dee man na laa tëjlu lu ne man na la koo def mën naa tax nga rey nit fay tax nit ñi yab la lu ne lay fay tax yow foo toll yaa tiit di xalaat ndax lii danaa si muccam déet wala jos yu bëree bëri bëri bëri bëri bëri fa la koy def la waaye seytaane ci la musu ba duggee loolu yëpp nga mel ko dof naan lii la la warta ne lu dangerous la nga naan lii sama no that's not healthy sa xel mi su wétee ta kaam te te normal xelam doomu aadama njaay mi ko yàlla def du kuy xalaatee noonu rek commencé di xool yi ngay lekk xamul dara lu baax lu ci ne commencé di ci aat lekk yu baax commencé di naan ndox wàññi lekk yu bon yi ngay lekk tuuti su dee dooy julli ngay julli sooy fay bot sax moo tane ñàkk julli waaye trial su fekkee yaa ngi ci kër gi wala yaa ngi am time pour julli bul fay bot yu bari bon booy fay bu bot yu bari waaw del wax dëgg bul di fen kuy fen du gëm boppam te kuy fen fay stress ndax ngay tuutil sa bopp pour nga mën a fen surtout boo ci dëkkee defal yu baax yi nga war a def yépp nga xam ne tax nga fonk sa bopp gëm sa bopp automatic happiness ngay xam boo defee loolu buggal sa bopp bu ragal spend time ak sa bopp del spend time ak sa bopp soo mënee méditer nga méditer sa yaram wi na toog relax sooy méditer sa yaram dafa war a toog relax lii da nga def ko suba teel wala ngoon bala ngaa nelaw wala bëccëg sax soo xamee tey waaye baax si nga def ko fu wéet xam foo xamul benn yëngatu nga toog frank laay su la nga gëmm bul def dara jox sa relaxal rek eh nokki nokki gu ne su yang nga xam stress trop nag na nga jël fii nokk bi bëri génnee ko fii nga def deep breath deep breathing deep breathing fa baax si stress fay génnee stress waaye bu gën a baax mooy nga jël ngelaw li ba pare jëlaat beneen comme nga def ni soo koy wàccee nga wàccee ko nii sa yaram relax nga jëlaat waaye soo koy def ngaa war a relax sa yaram yëpp sax waaye soo ko minute ngay gine soo koy def ngay def nii soo paree rek soo jëlee ngelaw li ba pare rek na nga fàttaliku nga relax yaram yëpp den nga génne comme ça nga def nii mën naa am loolu sama puus bi la jël ngelaw li téye ko si dënn ba si kanam génnee ko fii jël ngelaw li téye ko si dënn ba si kanam génnee ko fii loolu boo koy def fay dindi stress su dee nga xam stress bu rëy ba sa dënn bi fatt yooyu ba nga yëg ne daal yaa ngi xam stress bu rëy su ko defee nga continuer nga méditer nga wax alhamdulilah rabbil alamin jërëjëf yàlla axawsu billahi mina seytaani rajim axusubillahi mina seytaani rejim. axusubillahi mina seytaani rejim. traa nga dak seytaane parce que stress seytaane mo koy def fii lu la nit mënti def si àddina ak lu la mënti dal ak surtout suñ boo mënti dund seytaane moo si laxasu pour la ak sa xel mi di xalaat loolu di ko di ko gën bonal rek di ko gën rek di ko gën di ko gën bonal di la gën di la gën a teg jaxle déedéet nee ko subhanallah xawsubillahi mina seytaani rajim nga ne man suma suba dana gën su ma suba gën la lii ba pare nga ne jërëjëfe yàlla ci àdduna si ma jox jërëjëfe yàlla ci natt bi ma teg bu dee nattu la nangu naa ko jël naa ko xam naa ne yaa ngi ma yu baax yu bëree bëri yu ci yoon di ñëw yàlla gis naa teraanga yi ma jox yépp ma juddoog tey gis naa ni may toppatooxee di ma dimbale di ma sàmm jaaxle gu ma mës dugg nga génne ko xam naa ne jàmm ji ñëw suba moo raw lii te jàmm ji ñëw na ba pare jërëjëf lii ma teg nii du dara mën naa koo muñ lu metti métti waxal loolu rek fay tax xen bi xoyof si saasi li ma teg ni du dara mën naa muñ e dana wecceeku xam naa ne situation bi ni mel ni dana wecceeku dana bah incha allah jërëjëf yàlla sant naa si suma jëmm ji sant naa si suma roo gi may nokki suma yaram e may di dox di lek, di wax di tëdd di jog. su dee xam nga liggéey nga ne sant naa suma liggéey su dee xamoo liggéey nga ne maa ngi lay ñaan nga may ma liggéey te xam naa ne may nga ma ko pare pare naa pour liggéey xam naa liggéey bu baax liggéey bi maa ngi ciy xam xalal ju may jëriñee sama bopp ak nit ñi jërëjëf yàlla alhamdulilah rabil alamin jërëjëfe yàlla maa ngi lay sant di la gërëm su dee nga xam ne ay njaboot nga ne njaboot yi maa ngi lay gërëm si li nga leen di sàmm su dee nga fa gune yi fañ dëgër bopp duñuy déglu sax gis nga ne duñuy dégg ba tey nga ne maa ngi lay sant ci gune yi yaa ngi leen di protect te xam naa danga leen gën a protect suma doom yi fa ñuy dégg te fañ xam discipline te fañ yaru te fañ fonk seen bopp te bu set ñu ngi jàng nu ñuy fonkee seen bopp maa ngi lay ñaan nga protectal ma gune musal leen ci seytaane musal leen ci coonoy àddina yàlla na gune yi protect seen bopp it jërëjëfe yàlla su dee ngay sëy nga def noonu ak sa jëkkër ñaan wala sa jabar maa ngi lay ñaan nga protect suma jëkkër wala suma jabar maa ngi lay ñaan nga gën maa booleeg moom xam naa ne def nga ko ba pare maak suma jëkkër wala maak suma jabar benn lañ su fekkee foog nga ne du ngeen di juboo sax ngeen di xulu nga ne benn lañ ay xarit lañ benn lañ te ñu ngi gën a bu set jërëjëf maa ngi lay sant sàmmal ma suma jëkkër wala suma jabar ubbil ko bunti wërsëg protect ko musal ko si seytaane sàmmal ma suma mbokk yeeg suma xarit musal leen ci seytaane ubbil leen bunti wërsëg doomu aadama njaay nit ñu baax lañ fiñ may jëriñ ma di leen jëriñ kon nag sàmmal doomu comme ni may sàmmee jërëjëf yàlla buur bi suma xel mi ma jox nii pour bu yàlla sàkk maa ngi koy use di gën am xam-xam sant la gërëm la def nga ma nekk ni ku baax nit ku am ngor sant la si gërëm la jërëjëf you know just wax yu baax yi yëpp hmm? fay tax nga self love and self belief nga gëm sa bopp so sa bopp soo gëmee sa bopp te bugg sa bopp rek lépp loo warta def te di ko def danga ko ba ben benn bam jeex tak telling you this lii number one problem bi mooy gëmuñ suñ bopp bugguñ suñ inside ñu ngi xamee ay métit ci biit fii yoo xam ne moo tax mënatuñoo gëm suñ bopp te feek jànguñ ni ñuy gëmee suñ bopp dindi métit ko di ko seetaan ah duñ mën a xam that's the so vidéo bi gudd na already te bëgguma woon mu guddee nii but anyway <laughs> jërëjëf jëf ci vidéo bi hopefully ne like ngeen ko bëgguma woon a bu baax because gune yi ñu nelaw waaye foog naa faatu moo jóg noonu you know jóg na while ago so bëgguma yóoxu because suba tamit bu ma ma di wax nit ñi nii suma baat baa ngi calm you know suba teel but <clears throat> like I said dama xeexoon to that so moo tax nga gis ma baat bi kur neexaguma di wax ak nit ñi moo tax bot yee ma ne ma filmal vidéo bi ami xolof yoono know waaye dinaa ko def si english youtube channel bi tamit pour xam na suma yeneen follow yi fa nekk yoo xam ne xolof lañ so yéen suma followers yi nekk si youtube channel bu njëkk bi te ngeen bëgg a gis xolof vidéo kese bu hmm, amul hàngale dem leen si ami xolof youtube channel bi ami xolof youtube channel xolof vidéo kese laa fay post hmm. waaye biir naa leen ko posal ba tey ngeen gis ko ndax am na yéen ñoo xam ne yéen a ngi fi ba tey waaye fii dama ko bugg a def ah, english ak soose rek incha allah su ami xolof xeggee one thousand subscribers yéen lay xaar ngeen subscribe si dinaa fa nekk di def live vidéo yu important yëpp nga xam ne live bi du dem foofu lay toog muy live vidéo yu xolof yi waaw ak vidéo yu xolof yi am fayda yu bëri dinaa leen fa bugg di indi fii dafay nekk vidéo yoo xam ne ami joo bii dafay nekk vidéo yi nga xam soose ak xàngale su boobaa benn vidéo xolof dootu fi ñëwati waaw kon nag dem leen ami xolof léegi tey mu hegg one thousand incha allah is over six hundred now jërë ngeen jëf yéen ñu nekk si ami xolof youtube channel bi yëpp suma subscriber yu njëkk yi du leen fàtte jërë ngeen jëf xam naa waxtaan yu neex a neex yu ma war a indi parce que maa ngi si joni maa ngi si yoon pour gën a jubbanti suma bopp gën a yar suma bopp ak jàngal askan wi ku bugg a def noonu ni ngay def so inshallah yàlla baax na yàlla nañ ko fekkee ñun ñëpp ci suma jooni bi suma yoon bi ma ne nii yàlla naa si xam lu mooy wut mooy dimbale sama bopp ak community bi yàlla na ma ko yàlla may te yàlla barkeel community bi ñun ñëpp yàlla may ñu xel muñ dimbalee suñ bopp ak community bi ndax ku defut video hit yaa ngi dimbale community bi nit ñaa yang lay gis ni ngay def leen di jàngal ba defut hit kon nag yàlla nañu yàlla yar ñu yar suñ bopp yàlla nañ jàng ni ñuy dimbale suñ bopp bàyyi métit wi te jàng suñ loolu rek problem, problème suñ ko defee rek yëpp change ku gëm sa bopp rek da nga di protect sa bopp di def lo wara def di wax lo wara a wax te su boobaa sa stress yi dana wàññeeku automatique booy commencé def lo nga wara def wax li nga war wax di dugg si li nga war dugg xam xem di protect sa bopp rek coono bi yëpp ak stress bi yëpp wàññeeku te booy bugg sa bopp rek coono bi ak stress bi yëpp wàññeeku te su coono bi ak stress bi wàññeeku rek nga xam inside te su boobaa community bi yëpp dana am jàmm that's the reality waaw yal nañu ko yàlla may ñu ñëpp ñu fekkee an jërë ngeen jëf ngeen xendu jàmm an ya naa leen gis beneen yoon incha allah bye <laughs>